extraordinaire et exceptionnel bi ngeen def lii di firndeel rek ni yéen a ngi derrière vos leaders te ngeen xam ni loolu der bu ko am dara desetu la lu dul dem ci mbir mi ba jeex ci tàkk rek. plateau bii ñi fi nekk ñëpp ngeen may ma ma wax leen ni ku gis Cheikh Tidiane Youm wala ma ne ku gis sëñ Moustapha Sy gis ci wetam honorable mon jeune frère un de mes rares la classe politique Déthié Fall gis suñu sëriñ suñu kilifa sëñ Mansour Sy gis nag suñu doyen bu exceptionnel exceptionnel efficace def liggéey bu extraordinaire ci coalition bi te nit ñi xamuñu ko peut-être suñu doyen Habib Sy gis ci wetam docteur Cheikh Tidiane Dièye bi avenir bi ñu bëgg gis euh, suñu shérif Ahmed Aïdara defe naa alaaji Malick Gakou ak ñi fi nekkul ñi fi teewul parce que newuñu fi sama yaay ji Aïda Mbodj ñu ngi koy ñaan mu yokk ñaan yi ndax actuellement mu nga màkk di umra Cheikh Tidiane Dieye Moustapha Guirassi Djibril Diop euh, mon frère Thiam Babacar Diop defe naa fàttewuma kenn waaye su ma fàttee dinañu comprendre ku gis lii yëpp daje nga xam ni lii du coalition bu ndaw ku gis lii yëpp daje nga xam ni ci qualité ak ci quantité nous avons ici la plus grande coalition politique du Sénégal waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñun bu ñu fàtte lan mooy suñu jubluwaay élection locale benn étape la rek ci fi ñu bëgg a jëm. nañu fàttaliku ni d'abord suñu combat dafa yaatu combat africain la panafricain la Afrique dafa tàyyi dafa sonn ci nekk mbalitu àdduna bi les Africains en ont marre d'être à la traîne de l'humanité les Africains ont décidé de prendre leur destin en main et partout en Afrique s'exprime désormais le réveil des consciences l'éveil des consciences. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Vous voyez ce qui se passe en Guinée. Et vous voyez passe ici au Sénégal. kon bu leen fàtte loolu mukk li ñuy xeex ci élection locale benn étape la donte am na solo bu ñu fàtte ni fi ñu bëgg a jëm wala li ñu fi ñu war a yegg pour soppi réew mi. soppi Afrique ëpp na loolu moo tax ñuy waat ñëpp ci mobilisation autour de la coalition dañoo génn ci investiture ñëpp xam nañu investiture lu métti la bëri na ñoo xam ne mer nañu parce que la ñu foogoon wala la ñu bëggoon amuñu ko waaye bu ñu fàtte ni àdduna bi wala Sénégal du taxaw keroog le 23 janvier 2022 lay suñu mbëbët ci Sénégal ak la ñuy xeex du jeex keroog le 23 janvier 2022 kon ñi ngi woo ñëpp ñu dellu si daal di mobiliser waat autour de l' essentiel te l' essentiel mooy coalition bi ñu am ñun ñëpp xam nañ ni liy soppi Sénégal du génn ci lii kon yéen ñi teew fii loolu bu leen ko réeree mbir 2024 la ñu jëm te gannaaw 2024. ñu boole suñu doole boole suñu xam-xam daa di soppi réew mi yeewi askan wi ba yaakaar gi Sénégal yàgg sénégalais yàgg am xaar gi ñu yàgg xaar lu weesu 60 ans loolu lépp firndewu ci ni ñuy yoree réew mi est-ce que pare ngeen pour loolu. may wax nag tamit may wax tamit ne élection la ñu jëm dégg naa ay nit. di jël ay initiative ne dañoo bëgg mbooleem ñi seq mbir mi daal di signé benn charte pour la non man de damay wax man Ousmane Sonko du ma benn charte pour la non seen yéege torop waaye nag. gis nga violence kenn ku ne su li mu war a def kenn ku ne yem fi nga war a yem violence du am te nag bu ñu nangu parce que am na loo xam ne dafa commencé niroog naa fekk ngeen baal ma si wax ji parce que violence yëpp ci benn côté la jóge musoo gis opposition attaqué toujours les mêmes ñooy attaqué ba pare làqatu ci gannaaw force de défense et de sécurité su kenn ku ne yemee fa nga war a yem jàmm dina ne ñooy lu ko may nag li ma leen di wax yàlla santaanewul kenn nga dem joxe sa bopp ñu lay duma ku leen xosi soxleen ko Sénégal Sénégal dafa am ay nit yoo xam ne heureusement bëriwuñu ñun mën nañu wër ci télé yëpp di ñu saaga loolu takk ci der day romb mën nañu fay ay nit ñuy bind bis bu ne di wax lu ne si ñun day romb waaye yenn ay yet yenu ay paaka ñëw de dañ ñuy dóor duñ ko nangul kenn dama ne dama ne xam ngeen ni ñii yëpp tolloo ñoom ñoom du ñu sax seen morom moo tax ma leen ku leen xosi dóor leen ko may jéem jotee nag nañu mobiliser autour de tous nos ci Sénégal ndax nag ñoo ngi présenté candidats yi waaye fàtte nañu nag ni candidat ngi fii candidat fan kon dama bëgg ngeen ànd ak man wax nii dama bëgg ngeen wax ndax enjeu bu rëy a rëy xam ngeen ni waa ji fi ne nii loola ko tere noyyi ndax làbbaliñ ko fa làbbali 2019 ba léegi digéré wu ko moo tax saa su ne ñu ne léegi lu xew lu bees mooy gis ngeen tey nee nañu signé nañu convention américaine pour tabax ay pont Casamance lu baax la soxla nañ ko nee nañu tey taxaw nañu les points nano crédit baax na nee naa nag sama mbokk Casamance yi fu ñu nee alhamdulilah war nañu ne nag jërëjëf Ousmane Sonko ndax dinañ leen dinañ leen xëppal lu ne ci jamono ji ñu toll waaye le 23 ca guddi ñii bu ñu amee 25 pour cent ngeen xam ne du Ousmane Sonko soobee nañu mobiliser wu de tous nos candidats Sénégal Dakar nag ñëpp xam nañ ni Dakar mooy élection locale man bokk naa ci ñu taxaw samp lépp lu ñu mënoon samp pour que Barthélémy Diaz nekk maire u Dakar xam ngeen lu tax duma ci guddal ndax duma ko tàgg ndax dama xam jikkoom tuuti. boo ko taggee rek mu sax yi laaf moo tax duma ci lu bëri waaye li tax ma li tax ñu sonn mooy benn benn bi Dias du koo xam ne dangay ngay ànd ak moom xare jot nga wëlbatiku doo ko gis te man nag loolu laa gëm ñaareel bi foofu lay daanelee Barthélémy Dias kenn du ko jox mairie mu jaay ko Macky Sall dina ko jël en tant qu'opposant dina ko yor en tant qu'opposant ba 2024 ñeen waaji ba biir weextaan ñu ne ko rëpp muy yor continuer ko yor en tant que ku bokk ak ñiy defar réew mi soppi réew mi moo tax ma ne Barthélémy Dias maire de Dakar asalaamaaleykum